bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf alanbiyaai walmursalin sayidina wa mawlana muhammadin almakin wa ala alihi wa asxaabihi dawi ridwani waltamkin wa ala xayri xadimihi di lxabli almatin wa ala man sanna bi sunnatihim waqtafa aatharahum ila yawmi ddin mbokki jullit yi nii seetaan ak fi ñu mën a nekk asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. gannaaw bi nu santee suñu borom subhaanahu wa taala julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam di santaat ak a jaajëfal Mawlana Cheikhul Xadim ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel ci weer wu tedd wii nu nekk di chahru ramadan al mubarak nga xam ne léppam ngëneel la léppam yërmande la léppam njëggalu yàlla ak gore ca sawara di tàmbalee nag ci ñaanal Cheikh Mahmadul Muntaxa mi fi nekkal Sëñ Tuubaa sun borom gën ko fee yàggal te gën a yokk bi ba mu àggale yéeneem yi mu yéene liggéeyal Sëñ Tuubaa ci yoon wi yéene koo liggéeyal ci lislaam te ànd koog mboolem njabootu Sëñ Tuubaa gépp waaye ànd koog nun yi nun ñi di taalibe yi ñu am mbégte dellusiwaat fii ci seen plateau spécial yi nga xam ne baaxoo nañ ko amal ci weeru koor wu nekk di ci ànd ak ay boroomi xam-xam di ci waxtaane ay tomb yu ama am solo yu yitteel taaju ci lislaam ñu di ci ànd ak seen site yi di TH TV Xidma TV Waarwi TV ABS Pro Asna Khadim Leeral TV ak Touba Taif TV tey nag di altine ji njëkk ci weeru koor wi di ñaari fan ci weeru Ramadan ama jam tasin 1430 1443 ci gàddaay gi tolloog le 4 avril 2022 ñu fas ne dalal boroom xam-xam di sunu sëriñ di sunu kilifa di sunu royukaay di sëriñ Mor Mbàkke xam sa diine ñëpp xam ko muy boroom xam-xam bu ràññeeku ci dëkk bi mm, di ab jàngalekat li ko xam ne yaakaar na ñi mu jariñ ci xam-xam bari nañ lool waaye ñu feggoo itam nag ci wet gi sunu loxo ndeyjoor soppeem xaritam wëllëreem sëriñ Seexuna Mbaj mi nga xam ne ku ne xam na ko moom itam ci njàngum xasiida mu ràññ ko ci lool rawatina wala fa jaare yi nga xam ne sëriñ bii di sëriñ Mor xam sa diine moo koy bind mu di ko yëkkati ko njàng njàngeen wu leer te neex dégg lool kon ñoom lañ bëgg a àndal tey ci jataay bi incha allah tomb bi ñu fas yéenee waxtaane nag di tomb yitteel mooy alxayaatu zawjiyatul muasira muskilaatuha wa xululaha wala wa ilaajuha mooy maanaam sëy néegi sëy yi néegi sëy yi ci jamono ji ñu toll jafe-jafe yi ciy faral di am tamit yu bari lool lool lool ana lan moo cee saafara wala lan moo ko sabab d'abord nga doog wax ne lan moo koy saafara nag kon loolu lañ bëgg ànd ak Serigne Mor allah fekkoo Serigne Cheikh naa itam ci xasida yi kon bala ñoo tàmbali dañuy jébbal kàddu gi sëriñ bi mu nuyoo ak mbokk yi ñu doon la tàmbali liggéey bi incha allah. bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam wa mawlana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahabatihi al ghurur al makin wa ala xayri xadimihi dil hablil matin wa ala man iqtafa atharahum ila yawmiddin mbokk yi maa ngi asalaamaaleykum wa rahmatullahi gannaaw bi ñu sant subhaanahu julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam tey jaajëfal Achayul Xadim moo leen di nuyu di leen siyaar di ndokkeel ci weer wu tedd wu màgg wu barkeel yi di weeru xéewal weeru ngëneel weeru barke di chef Ramadan al di ci jiital ci ndokkeel bi Cheikh Mouhamadou Mountakha mi fi nekk Serigne Touba ñaan sunu Boroom mu bàyyil na ko fi eh, defal nu kiimtaan ci ak aw fanam waaye defal na ko ci ak wéram lim naalal Serigne lépp mu àggale ko sago te lépp naanu ko moom ñaanu koy ndebul Serigne Touba yëpp waaye di ci ndokkeel nag mboolem jullit yëpp rek fi ñu may nekk ñaan sunu Boroom mu defal nii ñi sooboo mu defal nu kàttan guñ ko mën a matale eh, te euh, suñu boom xéem ci man ko sellal sellalin wa ca mu laaj dañ nangul na ko te fekk at yu bëree bëri yu ànd ak jàmm xéwal mucc bak seel xadim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa jullit yi mbokki taalibe yi def loolu tëwér ñii ne ci liggéey seen tubaab def ko sëriñ bi ñaane léegi di siyaare bu baax suñu sëriñ sëñ Mor Mbacke xam sa diine ñu nu bokkal jotaay bi di ko ñaanal yàlla suñu borom gën a guddal fanam te wéral ko ñun ñu ne liggéey sëñ Tuubaa lépp ci toolu lislaam bi suñu borom defal ko tudd kawe njortam seen mbay moom lay siyaare bu baax siyaare mboolem technicien yi nga xam ne ñoo nekk ci bërëb bi yëpp bàyyiwuñ kenn yaa xayra dayfin ataa bil bisri wal madadi أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد يا خير ضيف أتى بالبسر والمدد أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد لا زلت ضيفا كريما زائرا أبدا مكرما بقرى الطاعات والسدد معظما عند رب لا شريك له وعند أهل التقى والعلم والرشد لا زلت ماحية أو زار وقادية أو قار وطارد أغيار من الخلد وصافدا كل شيطان بما ماحوه ومتحفا لذوي الإحزان بالصواد ومذهبا كل أغزان نضيق بها في الدار أفهدة يا مذيب النكد وزايدا كل عام ما نفوز به من جود مغن كريم نافع زيد يا شرب كريم فيك جادلنا بليلة القدر ذات الفضل والرغد يا شعر رب كريم فيك جادلنا بليلة القدر ذات الفضل والرغد إني أحبك حب ذات ذا طلب من مالك فيك إزعادا بلا أود دع توبة فيك أيضا ماضيا أبدا بالذكر والشكر والقرآن للأهد إلي قد تبت في الشعبان عن رجب مجددا فيك فاشهد لي بترك ددي يشهد بأخص كتاب الله فيك هنا إلى ارتحالي يوم السبت والآدي لشد بأخذ كتاب الله فيك هنا إلى ارتعالي يوم السبت والأحد وسر بحبك عبدات يا أملي وكن بي يوم الهول والكمد inni uhibbuka ya shahra ziyaamu bila غز فأهلا وترحيبا بلا عدد إني أحبك يا زهر الصيام بلا غز فأهلا وترحيبا بلا عدد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآلي وصحبي وجل هذا اليوم يوم مدي بما تحب وترضى أبدا بلا التفات وتقبل مني الحمد لله ما شاء الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين دار ci xasida gu am solo boobu nga ubbee tamit méngoo lool ndax mooy xasida gi Sëriñ Tuubaa gàttandowoon weeru koor ca ama xëy sasin mooy ba mu amee ñaari at ci géej ga yor goroo ko fekkoon mu mu gàttandoo ko gàttandiku lu am solo googu mu ko gàttandoo te wax ci ngëneel wax ci lu bare bare bari ci lu far làmboo waaye wax ci diggante mu koor ndax wax na ko ci njëlbeen gi ne ko inna xabibi wa xalili chahra ramadana xad istahalla alayya kon sottam la ko jàpp woon xaritam la ko jàpp woon ci biir xaside xaside gét wasat bi xubbika xubba daati yaa amali maa nga seede sa sama sama cofeel ci eh, jërëjëf sëñ Cheikh naa ci njàng mu am solo mi ak xis lu am solo bi xam naa kon sëriñ bi sëriñ moom dafa mel tomb bi ñu waxoon ne moom lañu war a waxtaan tey ñu ko waxee mooy alxayaatu zawjiya mushkilaatuha wa ilaajuha mooy jafe-jafe yi faral di am ci néegi sëy yi lan moo koy sabab ak yan solution lañ ci mën a teg ngir saafara xam naa kon laaj bi ñuy njëkki rek mooy euh, sëy ci boppam mooy lan ak lan mooy ab àtteem ci lislaam bismillahi rahmaani rahim jërëjëf sëñ jërëjëf sëñ Seex naa ci xaside gi ci njàng mu am solo mi euh, sëy day dafa mel ni dafa bokk ci jëflante lislaam yi jëflante yi nga xam ne dafa dafay àllaaqa diggante góor ak jigéen te lislaam yonal ko muy loo xam ne it lu munta ñàkk la la tax munta ñàkk na dana ñëw ci xëy na ci tomb yi ca des eh, ndax day day lu sun bam bindaali nit ndax ñaar xeet la sun bam bind mooy góor bu góor ak jigéen mu am ci nit am ci mala am sax ba ci gàncax eh, nga xam ne ci seenu ànd ci la aw xeet di mën a sosoo loolu dañ ci ñëw ci kanam waa paatem ci lislaam nag atteeb cosaanam mooy dagan mooy sëy dafa dagan lislaam juróomi atte la seetli ko yoo xam ne ëpp lu yeesut lu war lu dagan lu ñu sopp lu ñu sib ak lu xaram juróomi atte yi lislaam am lu lu am lu ne benn ci benn la ci sëy nag àtte ba mu ca dajal mooy dafa dagan waaye nag ay la mën naa tax ba ma amee beneen àtte bu teg dagan dagan mooy loo xam ne def ga ak bàyyi gaayam maanaam su la neexee def mooy def ga amul tiyaaba bàyyi ga amul bàkkaar su fekkee fasuñ ca dara waaye lu daga nag boo ca fasee ak jaam yàlla suñu bon defal la ko muy ak jaam yàlla waaye def gi nii ci ci jëmmi aada rek mooy loo xam daal bu la neexee def bu la neexee bàyyi lekk naan fi ne lu dagan la boo ca yéenee jaam yàlla suñu ba mu dal la ci tiyaaba waaye su ci yéenewu dara nag doo doo ci doo ci fekk kon loolu mooy lu dagan sëy nag mën naa dem ba juróomi ate lislaam yëpp gaar ko ngir taxil la di ko waral léeg sëy nekk lu war léegi-léegi sëy nekk lu ñu si lu ñu sopp léeg mu doon lu ñu sib léeg-léeg mu doon lu xaraam wala wala ba mu mu mu tënku ca atub cosaanam muy dagan yooyu ay la ñoo koy waral kañ la sëy di nekk lu war mooy su fekkente ne góor gi denc soxna am na man-man bi man na ko ci poosam mën na ko ci wérgu yaramam am na it bëgg-bëgg bi am na xeminteef bi bëgg na ko lool waaye bëgg ci tar na tar goo xam ne su dencut dana ko yóbbi mu jëf bakkaar kooka denc warugar la ci moom léegi waajib la waajib nag mooy loo xam ne dañ la ko gàll forcé la ca nga ne ñàkk a def day day day jur bakkaar waa def ga nag am na tiyaaba loolu mooy wujub kon mën naa àtte mujj soppi ku nekk wujub ngir sabab bii ko sabab mooy kii da ko bëgg bëgg tar na man na ko waaye ñàkkaa def mën na ko jural eh, mu def bàkkaar kañ lay nekk lu ñu sopp ma fekkee góor gi denc soxna eh, am na bëgg-bëgg bi ma am na xamante fi def ko mën na ko it waaye bëgg na àggul ci tar ba di ko yóbbu ci bàkkaar mooy mën naa muñ da nga bëgg bëgg mën naa muñ ba bu ko defut it du du du def bàkkaar wala sax jëmmi denc ga aw yiw la ci jublu mooy gis na jigéen joo xam ne kat kii xam na ne ku ko dencut dana wàccu yoon mu di ko denc ngir denc ngir musal ko ca loola boobu sëy sëy bu ñu sopp lay doon ab sëy mën naa nekk lu xaram mooy su fekkee góor gi denc amul man man bi mënu ko ci poosam wala mënu ko ci wér yaram ba noppi nëbbu ko nag nëbbu ko ku jigéen ke ba xamu ko ba mu dugg ci biir door koo xam loolu day xaram su fekkoon teel na ko xamal bopp na ne wax ko fa mu toll mu nangul ko ko su waa dootu xaram waaye ci nëbbu gërë ca ca ca nekk lu xaram mën naa nekk lu ñu sib ma su fekkee am na man-man bi e, bëgg na ko waaye bëgg gi nag àggut ci tar ba di ko sonal te dencee am na jaam yàlla gu ndaa def goo xam ne dana ko gàllankoor ko man kooku dañ ko sib ci moom na ko amu ci bëgg gu tar waaye am na jaam yàlla gu def goo xam ne su dencee wóor na ko lii dootu dana ko gàllankoor ba ko man kooka denc soxna dañ ko sib ci moom lu ñu sib mooy loo xam ne euh, mooy loo xam ne dañ la ko tere ci tere goo xam ne maa nekkul tere guñ la forcé maanaam bàyyi ga am na tiyaab waaye def ko nag bakkaar du ci ci nekk man a kenn fasu ko ci ne denc soxna waaye bu denc bu dencoon man euh, ne ko bàyyil waaye waaye bu bàyyiwutoon ba bu bàyyiwut ba tey dara du ci fekk waaw bu fekkee yii yëpp dafa dàqu nag lay doo des nag ci àtteeb cosaanam muy dagan mooy su fekkente ne man na ko bëgg na ko mën naa muñ te du ko gàllankoor yi ci genn jaam yàlla su ko doon def loolu su fekkee yooyu amu ci mbaa nag day day dagan rek kon su ko neexee def su ko neexee bàyyi ñu xam ne kon sëy daal la genn xéewal li ci xéewal ya suñu boobu yoo xam dafay dolli ko waxtu nekk nekk kaaraange lu dëgërit eh, ci ñoom ñaar ñëpp muy ko góor ki muy ko jigéen gi nga xam dafay jaar ci doomu aadama mu sàmmoon xéewal googu yi xéewal gu màgg googu yi ci ay wasaayil yoo xam ne yu limu la waaye ba ci njëkk te ëpp ci mooy bëggante baasu sëy mooy bëggante kon bëgg mënut a ñàkk nga xam ne kon euh, day mel ni li li li li doon xew ay jamono jékki-jékki forcé góor rek may ko soxna te tàggoo ko walla jékki-jékki <coughs> may sa doom jigéen te tàggoo ko loolu erreur la <coughs> erreur la ndax bu bëgg la ay jafe-jafe lay jur. kon kum ci mën a doon muy góor gi ba lañ ko denc soxna nga ko laaj ba xam ba ba mu bëgg na gis kañ ko kañ ko bëgg may boo wane ak bëggam jigéen suñu ko bëggee may na doon na doon ko bëgg bëgg mooy la la koy lal mooy tax ñu mën a ànd ci jàmm mooy tax itam mu barkeel mooy tax itam jafe-jafe ma xëy na yu yu bare bare du ci am waaw bu dee bëggante googu nag dañ koo di dañ ko di siiwa seen diggante kenn ku nekk di ko fésal ci wax ak ci jëf te wax sax da dafa bokk ci la ci am da am solo mooy wax ju wax ju neex damay wax ne góor moom su poosam diisuti naam wax ju neex bokk ndax wax ju neex ci lii sàmm sàmm ab sëy la bokk ci li ko li ko rafetal di ko dund ci la bokk sun boom danganal ko ngir ne mooy cosaanul njaboot wax naa ko njëlbeen gi mooy cosaanul njaboot ci la njaboot mën a sosoo ci lay ci lay formé woo ci lay dolli ko itam ci lay mën a itam wuyu tabiaa bachar yi ba xam su mën ko bindal doomu aadama ndax su ma dafa dafa daf ko daf ko bindal dafa bindal ni li ñu tuddee xarisa muy yëg-yëg bi góor di am ci jigéen ak jigéen di ko yëg ci góor mooy xarisa ba sun ba da ko bindal nit ndax mun koo ñàkk ana fa bu fa toll ci aas rek loolu da koy daal tàmbali da koy daal tàmbali yaram da koy daal tàmbali laaj moo xam ku góor gi moo xam ku jigéen ki la bu ko defee nag loolu dana dana tax dana dana kon tabiya basari boo kon léegi ci ci sëy rek lay mën lay lay mën a wuyoo borom ci lay mën a itam ñoŋale jigéen sàmm mbémb rek ba du sànku moo tax suñu boo ne fankihu maa taaba lakum min nisaa masnaa wa sulaasa wa rubaa fa in xiftum allaa ta'dilu fa waahida na ngeen denc lu tey ci yéen lu leen soob ci jigéen ñi ñaar ba ñett ba ñeent ci sartub su fekkee man ngeen a maandu mën a yamale su fekkee ragal nga waxut bu la wóoree de waaye boo ragalee rek ne doo mën a maandu soo na nga yem ci benn kon maandu ga it dañ dafa bokk ci lañ lañ lañ ca sopp lay saxal yi ba tey ne lu ñu yoonal la xadis bi Abdullahi ibn Mas'ud solo jële ci yonent bi salaasam wax ne Abdullahi ibn Mas'ud dafa ne xaala lana rasulullah salaasam yaa ma'shara shabaab man istata'a minkum baa'atan falyatazawwaj fa innahu axaddu lil basari wa ahsan lil farji wa man lam yastati fa ali bi saw fi inu lahu wija ne rasulullah daf na wax nenu yenn ndaw ñi képp ku ko ci man ku ko ci man man a amuk can digal naa ko wala dénk naa ko na deñ ci soxna ndax ci lay gën a mën a dammee ab gisam ba du xool lu mu wërta xool ci lay mën a gën a mën a sàmmee boppam ba du dugg fu mu wërta dugg ku ko ci mën a gudd nag amugut ak can dénk naa ko ne faral di woor ndax woor dafay woyofal eh, yëg-yëg bi góor di am ci soxla jigéen wala yëg-yëg jigéen di am ci soxla góor yég yëg boobu koor da ko woyofal da koy néewal doole muslim moo solo xadis boobu kon daal lii mooy tegtal ni kon sëy lu ñuy yonal la àtte bi itam lam waaye àtte yi àtte sam yëpp mën na koo gaar ci ci ci ci saw la boo xam ne ba koy gaar lay doon jërëjëf sëñ Mor Mbacke dafa naa ne ñu ngi leerale ak teg te jëlee daal nañ ci mboolem mi doon teewlu lu am la muy muy ñu xam lan mooy ateb ci lislaam ndax bari na ñoo xam ne dañ ciy dugg te duñ ko xam ta mu kàllaf day xaraam ci moom ñu ko si Tuubaa waxee muy dugg ci mel ni mbir te xamul ko si sariya ate kuntu waqad xarama rabbuna ala kulli muxallafin ala ma nuqila filan bi gayri ilmi xukmi sharci fiihi hada nasu dalilun qatci kon day mën a xam bi lu am solo la waaye liñ ci leeral it ci ne juróomi juróomi ati lislaam yëpp mën na ko gaar lu am solo la ma def ko bàyyi xel ndax am na ñoo xam ne kon ci ni ñu ngi sëy sëy yu xaraam te bay wu ci xel man loolu lu lu lu ma bàyyi xel la rawatina nag ñi nga xam ne dañuy dégg turu denc nga xam ne maanaam maanaam sax mu ngi wax léegi saytu xaram waaye jiw sàngam def na nangam naa ko def surtout ci wàllum ñaareel nga xam ne dañuy takk ko takk. moom day mel day dañuy concurrencé te dangeen doon léegi. Eh, rawatina fi gën a fi gën a tudd mooy mooy naa bu ñàkk dana ñëw ci waxtaan bi lu ci wax ji ci maandu eh, ak mooy lan ci lislaam ak ñu koy defee waaye tom ñaareel bi kon mooy ginnaaw bi ñu xamee àtte bi sëy am ci lislaam ban xikma nag moo tax suñu ne ci yoonal rek mbaa lum digle am na am na lu tax am na xikma bu tax mu yoonal loola buñ ko xamee ak buñ ko umpalee am ca yoo xam ne léeg-léeg mu leer am ci yoo xam ne moom rek moo koy xam lu leen lay doon day am ci mbir yi bu dee sëy nag moom dafa mel ni juróomi juróomi ma juróomi xikam moo tax suñu borom yoonal ko te bu ci nekk ba am solo la ma bu njëkk bi mooy ngir kenn ku ne ci ñaari way dencante yi nekk kaaraangeel moroomam nekk kaaraangeel lu dëgër loo xam dana ko fekk ba yi muy soxla ci lu munta ñàkk mu di ko am ci anam gu dagan mën a mucc ci lori njaalu mooy yàlla mën a am nga mu koy am moo koy fegal mooy yàlla mu nekk nos bu jub boo xam ne li suñu bon da ko da ko nos rafetal rafetal seen dund ñoom ñaar ci tëng bu gàtt doon mooy xikma bu njëkk bi ñaareelu xikam bi xikama bi mooy injaabu durriya mooy ngir nag amu njaboot ngir dund gi mën a continuer dundu doomu aadama ci kaw bii lay mën a lay lay lay mën lay mën a continuer muy di am njaboot amuk njaboot nag suñ koy wax ne dañoo bëgg nit ki bari ay doom ngir bari xeetu lislaam bëgguñu waxuñu na nga jur kër gi ba mu fees dell te kenn amul ci njariñ boppam amul njariñ njariñ réew wala amul keneen waaye njaboot gu am njariñ moo tax ñu wax njaboot guñ defar yar leen waajal leen jàngal leen ba ëllëg ñu amal njariñ seen bopp amal ko seenum réew amal ko e, lislaam amal ko yitam société bi njaboot gu mel noonu moo tax ñu wax buñ ne njaboot gu bari lool lañ ci jublu ndax demal dañ leen di waajal ngir yittey muhaafasa alal jiil xaadim maanaam waajal seen génération boo xam ne bu ñëwee ndax ñun ndax ñun ñoo fi nekk fi ne nii waaye njaboot gu ñu jur waajal leen ëllëg bu ñu nee diis ak fañ nekkoon ñoo fa ñoo fa nekk bu leen waajalee nag mooy tax lañ fi bàyyi woon te sotti ñu man ko sottal dañ di def lañ doon def suñ leen waajalu nag lañ fi la fi jotoon baax sax dañ koy far yàq kon bu ko defee kon waajal waajal googu luñ luñ luñ luñ ci bëgg la jàppe amuk njaboot mu bokk ci xewil suñu borom yi bokk ci kiimtaane yi xam itam laaj na sant ko ca wala jaal lakum min anfusikum azwaja wa jaal lakum min azwajikum banina wa xafada suñu borom nee na eh, yàlla bokk na ci kiimaan kiimaan defal na leen ay soxna yu bokk ci yéen di nit ni yéen waaye mu may leen ci seen soxna yooyu nag ay njaboot muy ay doom ak ba tey dafa jàpp itam njaboot ak alal muy taaru dund ak àdduna al maalu wal ziinatul xayaati dunia alal ak njaboot taaru dund ak àdduna la ak njaboot nag dafa am solo lool am solo gi tax na yonent yeeg ñu baax ñëpp dañ ko daan ñaan yàlla mu may leen njaboot gu baax su demee ci alxuraan dañu fekk yonent yàlla Ibrahim di ko ñaan boroomam di wax ne rabbi habli mina saalihin sunu boroom yàlla na nga may njaboot goo xam ne bokk ci gaa yu baax yi yonent yàlla Sakariya ñu fekk mu di ko ñaan rabbi habli min ladunka waliya sunu boroom yàlla na doom joo xam ne dafay nekk waliyu dafay méngoo ay mbiram sunu boroom di wax ne gaa ñi tuddee jaami yàlla yi jaam jaami yàlla yi ñoom day bokk na ci seeni seeni ñaan dañ daa ñaan di wax ne rabbana hab min azwaajina wa durriyaatina qurrata ayun dañ daa ñaan mooy yor sunu yàlla nag no may ci sunuy soxna ay sët yu sedd xol njaboot yu sedd xol mooy yu baax Sëriñ Tuubaa mi sunu yaakaar gis nañ mu di ko ñaan taman ashkuruhu jalla ala ma awla niya tafaddulan fa ni'mal mawla musalliyan ala allati xat saadana بفضله وللفلاح قادنا أزكى صلاة بسلام سائقة ليسري عن ذات دين فائقة وآله وصحبه والتابعين هنا وهب لي من لدنك يا معين ذرية طيبة تجدد نهج النبي المصطفى تجتهد maa ngi sant sama borom ci lim ma méngaleel ci ay xéewal te defal gi moo ko defal ngëneelam rekk kon amul morom mor sama borom sama borom boobu yi waaye maa ngi julli na di ñaanal xéewal ci kenn sang sang nanu ñun ñëpp ci ngëneelam tawam man nu jëminu ci texe ngeen jaa selli xéewal gu ànd ak mucc nga xam dana ma may léegi ci lu gaaw soxna soo am diine gi sama soxna su baax la njëkk a ñaan laata muy ñaan doom ju baax ndax soxna su baax mooy jur doom ju baax mun am doom ju baax te amul soxna su baax moo tax mu njëkk ñaan eh, soxna su baax mu ne maa ngi jàlle nag ñaan goog yi ci saxaaba yi ak ñoñam ak ña topp fii ak ëllëg te may ma nag yow mi nga xam ne yaa ji dimbale ji jaboot gu teey gu yeesal ngirum yonente bi sallallahu alayhi te di ca farlu feneen mu ne wahab lana dhurriyatan tudiimu al amala saaliha ya qadimu yow sunu doom yàlla nag mu may njaboot goo xam ne dañu doon njaboot gu baax guy jëf lu baax kon dañuy saxal dañuy saxal jëf ju baax fu ñu mën a nekk waaye ba tey nag am solo soxna su baax ba tey muy di ñaan soxna su baax suqli bi jaahihi waloodan mun jiba tali doo aarifan alayya ba maa ngi lay ñaan soxna soo xam ne day doon soxna suy amuk njaboot te doon soxna soo xam ne soxna su baax lay doon nga xam ne kami kami amit doom jami amit dafay nekk arif billahi taala dafay doom ju baax ju yàlla ji ji ko ji ko topp ñaana ba fu ñaanal ko bu ko fani yow ko shaytaana wali yahab wa hab lana al amaana wal tajalanaha daata xayrin wa jamal wa daata yumnin wa dakaa'in wa kamal wa daata axlaaqin xasinatin wa daat ibadatin xaalisatin ila al wafaat wal tajalanaha ya ilahi saaliha tajidu ma yacmalu baadi saaliha wal taj alanaha junnatan ani dunub jamiiha wal xaafilaati yaa mujib wal taj alanaha sababa saada bi jaahi man saada jamee saada kon soxna kon bala ngay jàpp ne soxna su baax la kon yëpp day day ci moom soxna soo xam ne day doon ko baax kuy am njaboot te yàlla nag ma fegal fegal ko seytaane te may ma may ko it te def ko mi borom borom taar borom barke borom yeewu borom mu mat sëkk kon yooyu daan da ci soxna mu doon doon ko baax kon da nga def ko itam ñu soxla mu nekk ko baax ko xam ne ka ka muy jur day doon koy koy jëf lu baax da def ko moo xam mu sawoon soxna da daf day dox sama diggante ak bàkkaar bàkkaar yëpp dox sama diggante xeeti càggante yëpp da def ko mu nekk saw bu saada saw bu texe kon yooyu yëpp kon da nga gis ne kon soxna kon faw yooyu daj ca mu door tudd soxna su baax kon kooku la njëkk a ñaan door a ñaan njaboot gu baax kon ñaan gi ko gaa yu baax yi ñaan rek ay yonent yi kon mooy tegtal kon njaboot am solo la yonent bi saa suñu waxoon waxoon ne tanaakahu wa tanaasalu fa inni ubaahi bikumul umam yawmal qiyaama ci beneen riwaaya fa inni mukaasirun bikumul umam yawmal qiyaama dee leen denc son da ci am njaboot ndax ëllëg damay damoo ci kanam yeneen yonent yi sama xeet wu bari kon day mel kon continuer dund doomu adama ci kaw suuf maqasad bi jubli jubli ci jubli sam du maanaam am lu may ci amuk njaboot mooy denc son am njaboot kon mooy ñaareel bi ci xikam yi tax ñu yoonal sëy ba ko ñetteel mooy taqaasum abaayil xayaati wal musharakati fi takalifiha mooy ñu mën a seddoo coono ya ndax njaboot ak kër dafay lu diis te nit nag yàlla du ko bindee su fekkee dafa wéet moom rek dafay yëg ci boppam faiblesse dafay yëg néew doole tarool da ko yóbbee ak taayal waaye saa su yëgee ne am na ko ne ci wetam da ko ko jàppale loolu da koy dolli courage da koy dolli njàmbaar da koy wéttali ba mën na ko yóbbu mu jël nag def def na yeneen sacrifice yoo xam ne day day day tax mën a mën a ñogal ak dundam su ko defee soxna samay àndaan de séddoo ak moom la cay ay mbégte séddoo moom la ca ay coono ak fitna su ko defee loolu ca lay mën a jaar nag ba jéggi mboolem sama baat yeeg yëpp mboolem ëkk na ci gàll yoon wi gàllankoor mën a mën a jéggi yëpp te loolu mooy ñu dimbalante ñoom ñaar ci yor njaboot gi ak yar leen yor ak yar du benn yor mooy te nit ki mënta ñàkk ci ak dundam mooy di lekk ba suur di naan màndi di set di solu yar nag mooy defar xolam mooy ni mu jàngal ko yar ko tërbiye ko bam nekk ko amal njariñ boppam amal njariñ aw ëllëg te kom nekk ba ba ko daal nit mën a jari ku jariñu jariñu ëllëg te njaboot dafa aajo aaju mënta ñàkk ñaari waajur yi na ci wetam te kenn ko nekk am na warugar ci doom ji kenn ku nekk man ca doom ji lu cee kenn mënut li bàyyi man ci doom ndey ja mënu ko li ndey man ci doom yi bàyyi bu mënu ko kon ndimbal la ca doon ku nekk def wàllam ci ñoom ñaar ko njaboot dañu daal di ñoŋ seen dund am njariñ ñu tekk su ko defee mën a jariñ bopp mu ëllëg jariñ ay bokkam jariñ diineem jariñ société bi muy dund loolu mi ngi amee nag ci yor leen ak yar leen fekkee amuñ ñaari waajur yi taxee lool nag dafay daal nekk jafeñ jafeñ bu tar boo xam ne dana seen dund ñoom ñaar kon da ca bokkoon tarbiyatul ajyaal al jadida allati taxtaliful jiil as saabiq mooy li ma waxoon léegi waajal sénation boo xam ne ëllëg ñun ñi buñ ne dese ñu taxaw maa taxaw fañ taxawoon di def lañ doon def mën a wéyal lañ fi bàyyi su ko defee loolu nag dafay euh, amaana li ñu te amaana dafay am kon te yaa lañ ca yar kon day mel ni kon mooy waajal leen ngir euh, jiil boo xam ne dañuy dañu doon ñu amuk dogu ñu am ngëm gu dëgër tabax seeni xel tabax seen jikko waaye yëkkati seen yitte ba ñu ñoo xam ne ëllëg lu ñu la fi bàyyi dana ko ñogal mu nekk na masuuliya boo xam ne bu ñuy bokk la ci loolu lay sàmm nag fedd di lekkoon ci ñaari waajur ñu taxaw temm ci waru garu sàmm ak yor ak yar ba ko ñeenteel ci xikam yi tax ñu yoonu sëy mooy xifdu nasab sàmm askan aw askan ci doomu aadama rek la ko suñu boon def askan amul ci malaaka askan amul ci ak jur maanaam askan wu ñu organisé ndax bu dee ak jur moom da nga gis doom ju wëlbati ko sëy ak ndey ja gis bàyyi bu wëlbati ko sëy ak doomam nga xam daal moom leen ci ñor mooy nag kii di góor lii di góor lii di jigéen rek lii lii ñëntuñ leneen waaye nit nag dañoo organiser ak dundam sun doon jox ko am xel mu wuteeg bàyyi mu wuteeg malayka ñu bëgg na seen nga xam dencante lay doon ba waaso ak xeet yi mën a séddili ko ñu mën a ràññee diggante baay ci doom mbokk ci mbokk Euh, euh, séddale ko a ba kenn ku nekk ba kenn ku nekk euh, mën a féete fenn nga xam ne nga xam ne nasab yi du jaxasoo du jaxasoo dañu xam ne kii kat kii baayam kii yaayam su loolu amutoon nag nit mën naa bañ a xam koy baayam wala wala nangami baay lay am wala wala lu jaxasoo muy muy askan yu jaxaso kon dañ ko yoonal nag ngir sàmmoo askan kon kenn ku nekk nga xam ne kenn ku nekk ci ñu day day jox àqi boromam ci cofeel gu dëgg ngir ñu mën a nekk ay ci seen doom ñu ëllëg mën a mucc ci lori njaalo ndax sunu boom na euh, wala taqrabu zina fi noo kaana faaxishatan wa sa'a sabila bu la jege njaalo ndax njaalo kon lu bon la te ñaaw la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na iyyaakum wa zina fa inna fii arbaata xisool yudhibu lbahaa an il wa yaqtau risqa wa yasqitu rahman wa yujibul maa ngi leen moytali ko loo njaal ndax njaalu ndax njaalu ko juróomi musiba ngi ci ba ci njëkk mooy dafay dindi taaru xar kanam njaalu dafay lëndëmal xar bu am njaal ko fekk xar kanam day lëndëm du am dara dafay dagg wërsëg itam dafay dagg wërsëgu nit ki dafay merloo yàlla ba ko ñeenteel mooy dafay tax a dëkk sawra bu faaw yàlla na musal ba ko juróom ci xikam yi tax ñoo na sëy te mooy ba ca mujj muy ngir kenn ku nekk ci ñoom ñaar yoo denc ne nekk noflaayab moroomam kenn ku nekk di féexaleb xolam ci ëttëb moroomam ku nekk am ko lay defal ci coono yi rawatina góor mi nga xam ne mooy génn di sonn di ñaq di wut lu mu indi ci kër gi saa su dikkee ci kër gi indaale jaaxle war na fee fekk ko koy delloosi su indaale coona war na fee fekk ko koy massawu su indaale jafe-jafe war na fee fekk ko koy delloosi te loolu nag dara mënut a càkk ci dund moo tax sunu Boroom wa min aayaatihi an xalaq min anfusikum wa azwaajan li taskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma bokk na ci kiimtaani sunu borom bindal gi ñu leen bindal ay soxna yu bokk ci yéen di nit ni yéen ngeen ngeen de amee ak dal fa ñoom li taskunu ilayha ngeen ngeen de amee ak dal fa ñoom ñu di leen defal di leen delloosi di leen xelal mu def ci seen diggante nag cofeel ak yërmande baatu mawadda bi ñu jëfe jëfandikoo dana dana feeñe li ma doon junj ci gannaaw mawadda ak mahabba wute nañ xam ñaar yëpp cofeel la ko wolof di firee bu ne mahabba wolof ne cofeel bu ne mawadda wolof ne cofeel waaye am na wute mahabba mooy cofeel gi na ci xol bi nga di ko yëg fi ne mënoo xam li ma bëgg te waxuma la ko kon la la ci sama xel ma di ko yëg muy ak bëgg lool lool mooy mahabba mawadda nag mooy geste yi koy wane xam nga nit ki am na geste bu muy def nga xam ne kii daa bëgg geste yi koy wane mooy mawadda kon la wone moo kon dañoo war a manifester seenu mbëggeel di ko wane di ko wax waaye di ko jëf waaye lépp dalal ko su ko tax mën a lay tax mën a yéwén nag mooy tànnante am tànnante dañu wax ne poraatum jabar mbu biitum doom kon soxna dañ koy tànn waaye boroom kër dañ koy tànn tànn nga moo tax yonent bi yonent bi salaa salaam waxoon ne tunkaxul maratu li arbain li xasabiha wa jamaaliha wa diiniha fadar bi zaati diin tarabat yadak nee na jigéen des na ko denc ngir benn ci ñeent yi benn dafa am alal nga di ko denc ngir jariñoo ko wala ngir jariñu ca des na ko denc ngir dafa bokk ci yax bu rëy dafa bokk ci askan askan wu ñu naw nga di ko denc ngir dara jawoo ko wala boo dafa taaru nga di ko denc ngir taar ba walla dafa am diine nga di ko denc ngir diine ja mu yow mi may déglu nag digal naa la waroom diine mooy ki nga xam ne réccu du ca mbukk man ngaa denc ngir alal walbatu ko réccu man ngaa denc ngir yax bu rëy walbatu ko réccu man ngaa denc ngir taar walbatu ko réccu waaye denc ngir diine réccu moom du am mbukk soo dencee ngir diine su ca alal dolli ko di bénéfice su yéex bu rëy dolli ko di may su ca su ca alal dolli ko di su ca taar dolli ko di bénéfice su yee góor gi yéen sa mu ne saa góor ne salaamaaleykum ci seen kër soxna laa bëgg leen xool leen ko su ngeen gisee ci gis ne kii kat ko am ku jikkoom rafet la may leen ko su ngeen ko dàqee nag dana jur fi nag jafe-jafe yu bari ida ataakum man tardawna diinahu wa xuluqahu fa zawwijuuhu illaa tafaaluhu takun fitnatun fi ard wa fasaadun kabir kon tànnante kon mënut a ñàkk suñ tànnantee nag ba ba am na ci la ñu a nag mana mana nag tabax euh, tabax nag askan woowu muy muy al jiilul xaadim boobu ma doon wax bala bala lañ soxla ñu mën ko ca am. Hmm. lañ cay lislaam bi yoonu la ko ngir bànneex rek comme ni ñu ko xewee ci jamono léegi nga xam daanaka ndaw ñi kenn ku ne ci ñun eh, la tax muy dañ soxla mooy mooy mooy mu ngi ko waxoon léegi ci jël bi defandoo ak xool ak taar wala xool bànneex te loolu la ñu jàppale ci diggante bi jàppale doomu jeex ah. waaye kon ñu xam ne jaamu yàlla la nga ko wax itam ci wàllu yar ak yar nga xam dañuy dimbalante ci yar njaboot bi batub yar ak yor ñu bari dañ ci ci xam nga fi mu laa juddoo waaye barab am na ñoo xam ne dañoo war ne dañoo war ne barab lañ ma lañ ma yore lañ ma yore woon moom comme nii waaye da hmm. barab sàngam laa yaroon day mel kalimaat yi ñuy istimaal hmm. mustalahaat duñ ko xam loolu lépp nag la koy waral mooy ñàkk gu ña ay mujj ñàkk bi def la leen war ci seen diggante seen seen diggante seen seen njaboot waaye mu mu bokk ci xikam yi ni nga ko waxee it mooy mooy xeexu nasab nga xam ne sàmmu askan kii xam ne kii baayam kii xam ne ñi ñooy ay doomam xam ne itam kii ay bàjjanam kii doom bàjjan ki naag nga xam ne noonu ko lislaam organisé ba ba ba ñoŋ noonu bu amutoon ni nga ko wax ci bàyyi nii noonu rek lay demee loolu dellu am solo. Euh, bi ci mujj mooy mooy doon bi kenn ci moroomam di dal dalluwaay ci moroom nga xam ne rawatina góor nga xam ne muy génn di sonn léeg muy stressé léeg mu xëy xëy xëy mi dox wala yu mel noona bu fa bàyyee jigéen koo xam ne bu ñëwee da koy gën a teg ay coono wala ay ay ay ay ay yeneen day day kon <coughs> li taskunu ilayha lu ama am solo la te mata jàngat nga leeral ko bu baax a baax ci ci biir ci biir ci biir waxtaan wi kon jërëjëf sëriñ bi euh, day mel na ñaari tomb yooyu lan nañ xam naa bala ñoo ñëw nag ci baaxul muskilaat muy lan ci jafe-jafe yi nga xam ne mooy faral di ci biir néegi sëy yi teñ seetlu ko mu bari lool lool lool ci at yi dañuy dellu siwaat ci sëriñ Cheikh naa mu mu baaxewaat mu kenn xasiida incha allah ñu doot dikkaat nag ci ci ci sëriñ ñëw ci baaxul muskilaat lay tuuti bi kasaratul ixtilaaf bismillahi irrahmani irrahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman muhammad muhammad ملك الذي خلق البرايا واسع والمصطفى صلى عليه الواسع ملك الذي خلق البرايا واسع والمصطفى صلى عليه الواسع ملك الذي خلق البرايا واسع والمصطفى صلى عليه الواسع عسى تقدم والبراعة فائغا ما له عند المليك مضارع من سره أن لا يزال مكرما فليحبب المختار نعم البارع من سره نيل المراغب كلها فليقتفل معمودا يوم الشارع دوموا على حب الإله وحب من بعد القضاء إلى الجنان يشارع من سره أن لا يفارق فرحة فليقصد المعلوم يوم الشافع عزيت يا والمسايا كلها صلى علي عما سلا من نافع من سره أن لا يلاقي طرحة فبحبه يكفي البلاء الرافع من ربنا رمت صلاة مسلما للمصطفى بالعزب والدافع دفع الذي قد زاءني قبل انتهاء لي بالنبي للخير باخ واسع دفع الذي قد ساءني قبل انتهاء لي بالنبي للخير باخ واسع يا سيدي يا بخيتي يا جنتي هذه مبايعة إلى يوم اللقاء كل القسيم مما اختفى بتكرم وانظر إلي بنظرة تنفي شقاء وانظر إلي بنظرة تمو بها ما بي من الداء الخفي واشفقا وبيسلك نهج الخويم وخص يدي مع كل شخص بيقتدى وتعلقا يا ناصر المنصور الدور إني مختف جد لي بما يفدي مريدا لارتقاء يا أيها المفتاح جد لي بفضل ولتخدني للتقى يا أيها المفتاح جد لي بفضل وتخرني للتقى يا أيها المفتاح جد لي بفضل وتخرني للتقى يا بر yaa maim aybi kullahu wal xalba minni naqi yaa muntaqa yaa ayyuhal munjillase nan juubiye faltun jini min kulli shayin yuttaqa yaa ayyuhal bahrul karimul muhtama تكن مانعا لكل شيء ينتقى ووسائلي لك جيم وشيء بدت وهي الكتاب الذي بصدقك الصدقة والثاني سنتك التي قد بينت وثالث الإجماع قزما ملحقا صلى عليك الله خير الصلاة ولا لواء زهب العداة تخلقا أزكى صلاة مع سلام مرشد هذا المبايع أو يسيرة محققة أزكى صلاة مع سلام جاذب هذا المبايع للمدينة ملحقا حتى يسافهك المسافة التي يرجو ويهجو أن تكون تحققا ربي قساس الودية للولاء يوم الجزاء يوم الأمانة واللقاء يا ربي قساس الودية للإله يوم الجزاء يوم الأمانة واللقاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ما شاء الله ما شاء الله جزاك الله خيرا سيدنا شيخنا ci xasida yu am solo yooyu nga xam ne sëriñ bi da ci tagg yonent bi sallallahu alayhi wa di ci leeral digganteem ak moom waaye di ci di ci di ci di ci leeral ak jaayanteem ak itam di ko di ci tawassuloo ci moom di ñaan suñu borom ay ñaan yoo xam ne yàlla mu suñu borom maa sa defal ñu ci jàng nga am defee <coughs> eh, sëriñ bi xam naa dañuy dellusiwaat ci ñetteelu tomb bi muy muy muy al muskilaat baadul muskilaat allati tuaaniha eh, al xayaatu zawjiya axyaanan mooy yenn jafe-jafe yi nga xam ne léeg-léeg eh, néegi sëy yi dañ koy am waral ak juyoo seen biir mën dem ba sax juru tàqali ko ci seen biir loolu naa dañ ci mooy yenn ci yooyu ci ay ay sabal Ah, jërëjëf sëñ Bay jërëjëf sëñ Cheikh Naab ci njàng mu am solo bi su ma gën a wéral baat bi waaw loolu day eh, bu ñu seetloo ne bari na lool lool lool lool ci biir néegi say rawatina jamono ji ñu toll li ci xew lépp sax mane ne su ko wax daanaka foo boo xoolee sax eh, yan ay ay ñaari fu mu am mooy gis na daanaka laaj yëpp la ci ëpp mën ngaa mën ngaa ne quatre vingt pour cent yëpp ci loolu lay jëm ci mbirum sëy waaw nekk lu am solo waaye nag bari na ay jafe-jafe loolu jamono yi ñu toll na lu daa am te amutut lu ci bëree moo ko indi kon di ko sabab bari na may sute yim lim yëpp dañ ci lim yenn rek bokk ni li waral tas gu bari gi jamono dafa soppi ko lool balaa amoon bu njëkk ak li am léegi du benn bu njëkk su nit masaan toll ci dem ba toll ci mata denc soxna baayam da ko naa demal sa kër bàjjan sàngam wala sa kër nijaay sàngam soo demee nga xool ay doomam ko ci bëgg nga ñëw wax ma ko soo demee def la ko baayam sant dem xool ñu wax ko kam bëgg dox ko ñu may ko ko su ko dee lool nag dana dana ci rus ñaar benn dana respecté respecté baayam ngir yaakaar ji mu am ci moom ba tànnal ko ko ba tax dana ko téye ngir loola dana bàyyi xel it bokk gi leen yàlla boole mu sàmmoo ngaru ba lu bokk bañ bàyyi ko ci moom bokk ñaari may walla bàyyim jekki-jekki dem ci ay bokkam ci lu mu ko dul tàggu wutal ko soxna bañ fas ko mu dal ko ko yëgal te du ca dindi dara ngir respecté gi mu respecté bàyyim loola mooy li amoon bu njëkk waaye li tax loola mënoon a am nag mooy ñoom dañ daa yar seenu njaboot ci ngor yar leen ci diine yar leen ci mbañam rus yar leen ci ay teggin ak am kilifa te nangu yilif la ba loola woon ni ko nag la mbir yi ko ba ëpp amatuñ kilifa léegi xale yi ñoo bëgg seen bopp ñoo tànn seen bopp ku ci jàpp ne nag yaa yilif sa doom ba jekk-jekk takkal ko su ko bëggul da koy bàyyi du la ca seet du ca seet keneen ba leneen kon lool dañu dañu dañu xam ne kon lu lu jamono indi woon la ñu ban nag rawatina ci biir murid gi ba tey dañu bëgg dañu bëgg doxal lool tax xamuñu ne jamono laajatu ko ba tax na bari na sëy yu yoo xam ne loolu mooy li koy waral muy benn ba ko ñaareel ci la waral jafe-jafe yeeg tas gu bari gi ñàkk jiital li waralal ab sëy ab sëy li ko waralal mooy ngor ak diine léegi seetatuñ ngor seetatuñ diine li ñuy seddal daal mooy alal ak optaar lépp ci jigéen nit li ñuy ta li li ñu toppe góor mooy alal ak situation ki sëy na ngir alal su alal ji jeexee sëy ba tas kii say ngir situation yit su jamono soppi ko say batas ndax la la ko indi woon dafa nekkatul bi góor ñi xamee lool nag léegi suñ la bëggee seeni tappale lañu lal rek jël ay fen ràbb ko ba mu rafet di la wax loo xam ne dara du ca doon dégg gëm loolu ne la maa am lii maa mel nii léeg-léeg mu tudd la ku siiw ne la sama xarit soo demee xamu ko sax musu ko gis damay dem Allemagne damay dem Amérique damay dem ba sàngam te ba demee gore gi mos faa dem wala transitaire la wala directeur banque la gëm loolu daal ay ay ay kawe te fekk lépp ay fen nan la suy ñëw gannaaw xas na xam ne yow moom situation ak alal ngay xool day luye oto bu rafet gëm loolu ne moo ko moom solier yu rafet takk montre bu cher ngàbb iPhone bu cher mën naa am sax du ko àbb loolu laaj ka lu ñuy qualité qualité hmm. di yàq sa bopp hmm. eh, ba nga dugg ci moom dem ba ci biir door a xam ne ndox dara du ci dëgg fekk na bëggoon ci yow am na ko noppi su ko den lu bànd ba gudd gudd gudd nag fa mu mujj mooy tas rek hmm. ndax day daal découragé kon loolu eh, da ciy am mooy léeg-léeg it nit ki day day da doon nangoo wax kam doon mbaa mbaa lam doon am na ko doon goro ci barab ndaw si laaj ko looy liggéey mu ne ko man chauffeur la <laughs> chauffeur laa ñu dama fi wax ne chauffeur laa te mosuma laa gis nga yor oto mu sëgg woo ko ndongi ne ko chauffeur saritu mbaam <laughs> dëgg la dëgg la waaye moom na ko wax ca teel chauffeur lu doon waaw ah, su ko defee nag kalay bëgg bëgg la ca loola sooy bañ bañ la ca loola waaye waaye moom waxal dëgg rek kon ñàkk ñàkk eh, njiital gi njiital loola moo tax eh, jafe-jafe yu bare bare bare di ci am ba ko ñetteel ci mbir yooyu mooy mbëggeel gu sincère moo amatul walla bëritul ñu ci bari dañuy xemem rek rawatina góor ñi ñenn ñi ab taar rek la ñuy xool dañuy gis jigéen ju xeesal ba weex jekk lool rafet lool mu daal daanu jël ca moom daal di koy xemeem dugg ca moom te seetul ji ci njëkk mën naa dugg ba ca biir nag fekk muy jigéen ju bon jigéen ju wex xat mujj mel ni ca moom ni ku ngëb xalu sawara la cay mujj moom itam mooy tas rek am na ca borom barke ñoo xam dañu fayee ëpp moom takk di wàcc rek mooy seen bëcc ndax jigéen gis jigéen ñu gis mu rafet ñu takk suñ xasee xam la mu waddoo pare nañ ci moom dañu am xaalis nag te xaalis moom buntu moom fëgg mu ubbi ko te gannaaw jigéen ñi xaalis dañuy jiital moo tax kuñ kuñ gorale mu nangu donte xam nañ ne abat ci kal waaye alal jaay tax kuñ goro mu nangu suñ ko takkee diir bu gàtt ñu dool ci moom wàcc ko seeti moroomam am ni ci jigéen ñoo xam ne te loolu Dakar la ëpp wala dëkk yu mel ni moom jigéen joo xam ne day am lépp day am xaalis am kër am oto am daal situation bu baax waaye li yëpp daal moom ba ceene ñu tuur ko xaalis xam ki nga xam ne bu xëyee du am lu mu ndekkee danga koy day day jekku ci xaalis soo lu ñu attan ko ci moom buñ jotee ci moom dooleen dong lañ soxla buñ demee ba ngacc ko mu set ñu sànni ko wëri moroomam am na ci nag benn benn yu baax yoo xam ne amuñ am nañ loolu lépp waaye lu ñu bëgg rek mooy waa ju baax joo xam ne daan leen mën a dimbale ci seen diine man leen a suturaal leen ñu jaam yàlla ci moom ñu bari ci sama classe gi nag ñooñu la ñu wër ñu sama classe gi ñooñu la ñu bëgg lu yomb ñooñu la ñu wër waaye xam nga lool it mbëggeel gu sincère lalu ko xaalis ba ak yomb ga moo la ci dugal koo xam ne sëñ bi dara warul la da ngay da ngay jaaxaan rek mu de saafal ay ginaar aatan coow lu ne kon da ngay xam ne boobu ànd intérêt ko lal kon lala ca bàyyi waxtu jeexee mu dem ba daan yurtu dara da nga koy wàcc ndax yàlla taxutoon su dee amoo ngor su dee ko am ngor nag ngor ga mën na ko caa bàyyi ba tax mu sax ñu ngir ngir lam ko ji ba ko ñeenteel ci li waral problème yu bari yeeg tas gu bari gi mooy fiir gu ëpp bari na lool sëy yu tas yoo xam ne fiir gu ëpp rek a tax lool na ci jigéen ñi la ëppee fi nee fiir ñett la ba ñeent am na fiirug bëy am na fiirug xar am na fiiru ginaar am na fiiru xaj su dee fiiru béy moom aw làmmiñam lay yor rek weer weer weer ju du selu guddi du selu bëccëg bu dee fiiru xar nag moom moom fiir ga day na ci biiram mën a yógg ak moom rek du wax waaye xolam di tàng mu di ko meseer saa bu xëy di jeex rek nga naan kii xanaa ah, kii daa feebar kii lu ko dal fekk fiir gu métti képp ko jàpp fiiru ginnaaw am xam lay sol moom fu mu dugg fa di jàmbat rek lu mu xam lu la xam li mu siiw sama jëkkër lii sama jëkkër laa doxa wax rek liggéeyam mooy mooy mooy liggéeyam bu dee fiiru xaj nag moom day ël ëli rek jigéen du dugg du jigéen du fa dugg doo wuy appelu jigéen doo woo jigéen jigéen du la seet lu ci am du soppi ko waay day dañuy vérifier dañuy vérifier sa téléphone di xool say message ba xam yaa ngi wax jigéenam déet suñ gisee yenn message yi attaqué la xuloo man mm-hmm. da caa jàppante yow ba tàggoo mujj ci mm-hmm. am ci ñoo xam ne da leen di jaral soo génnee ñu di la topp di la wéri di di di la siroye mm-hmm. ba xam looy dox ndax da ngay doxaalam déet yan yégal ci baat bi ñenn yu sooy wax téléphone ñu di la yëddu di déglu ba xam yooyu yëpp ci xeeti fiir la bokk waaye baaxut fiir gu ëpp fiir baax na waaye ëpp ga nag baaxut am na itam ñoo xam ne ci góor ñi la xam duñ jégale eh, am ci ñoo xam ne soo takkee ñaaree soo leen ko annoncé soo tuddoo ko nettali jigéen ñaa ngi sotti seeni seeni borom kër ngir fiir di leen sotti diw tàng ngir fiir yéen rey ci façon bu nekk am na koo xam ne ba léegi mi ci kaso bi ku jigéen borom kër dafa ñëw ne ko ne ko am naa ñaareel parce que ñaar bi jublu ci soxna mooy dafa am oto bees rek waxee kook noonu waaw wutal naa la wujj mu ne ko ma ñëw ndaa dem sansal lii ñu sotti ko ndaa di ci saas ba fi ne ma ngi ca eh, ñi ñi ragal seeni seeni soxna moo tax ñuy takk takki suuf takki suuf yi bari na lool rawatina fa mel ni Dakar Dakar mu takki suuf bari na fa lool yëpp dañu ragal seen di benn jabar lañu dañ koy ragal duñ ko ñamee wax. wala ñu ba buñ ko kaanoo si seen xarit la ñuy yónni duñ ko ñamee wax seen bopp. wala ñu yabal ustaas bi ci koñ bi. naan day dem jëkk ko waar waar a waar a ngir rek bëgg mu woyofal war ci moom. waaye su dee ko fiir gi ëpp moom lu mu ko waral mën naa mën naa bu ñu bu bari ay dàll. du ñëpp nag waaye bari na ci lool. te fiir mën naa àgg ci mu mujj ñaan baat. ba juróom juróomeel ci yooyu eh, jafe-jafe yooyu nga xam ne dafay indi tas gu bari mooy kujje gu metti kujje am na ñoo xam ne mënuñoo mënuñoo supporté wujj suñ bokk yi dëkk xuloo guddi xuloo bëccëg xeex guddi xeex bëccëg ku ci ne di yéene samorom aw ay di ko yéene le bon di ko yéene musiba lu ko daal nga ne nga ne ñaw maa ko ko yéene du yem ci yéene ko ko waaye dañuy dox ci lu koy dëggal di def ay fitis di dem ci jabar yi di leen liggéeyloo liggéey soo ji ngir mu dee mbaa mu def mbaa mu génn kër ga bu dee su dee ko ragalu yàlla nag mbaam mu bëgg xaalis soo ko fayee mu defal la la nga bëgg kër ga tàmbalee rëng rëng ba mujj tas fan yooyu maa ngi dégg benn benn benn audio boo xam ne mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi wër ci réseaux sociaux yi benn woo woo ku jigéen di ko jégglu mu ne ko loo def ba di ma jégglu mu ne ko dama la dama dama dama dama laa liggéeyoon mu ko la sàn ko ko ko ko sant mu ne ko diw sàngam kooku doon kooku diwu eh, nga xam ne day tukki Amérique la nekk mu ah, lu mu la liggéey ci man dama liggéey pour pour ma ngir ma dee wala mu danoon naa rek ba ba ma dootu am dara wax na ma it say doom ma ma def le ba nga xam lépp lu mu leen sant ñu def ko tudd ko ko góor yi ne ne mooy tam naa ko liggéey ba mu ko wax mu def ko mu ne ko kooka muy borom kër mooy suñ borom kër di ko jéglu bay jooy ne ko nag damaa xam ne lee ma deet ma ko faatuwaale di ko jéglu bay jooy nga xam ne kon loolu mi ngi am jigéen ñi liggéey seen boroom kër boo xam ne këram dafa mas di lakk néegam wu jëwat di ko ko fayle sonn ca fay ga lool ba mu fay en tout yow de dañoo jaaxal ndax sa wujj yi nga xam ne moom yaa ngi moom mosu leen a mane su yéen nga xil yéen nga xuloo yéen xeer ak ni nga sonn ci euh, fayle ko lakk gi mais damaa dégg ñu ne ko faatu ci lakk àjjana nga jëm te bëgg mu dem àjjana <laughs> moo tax mooy moo taxoon mu di nga xam ne moom iñaan na ko ba ba bisañ ci loolu nag yëpp ci na ay ay jafe-jafe la yoo xam ne mi ci mi ci biir euh, néegi sëy ay soxna buñ bokkee dëkk te yéenante wuñ jàmm seen borom kër fu dem xelam du dal saa yu génnee jàpp ne balaa ñëw ñu rayante su dee dootu xam dara ci la muy liggéey xam naa sama dëkkandoo boo xam ne dafa xëy xëy benn bis wàccandoo ñetti soxna ñeent la yoroon ñaare ba la fa bàyyi wàcc ña ci ñëpp talakor mooy ko ju ko jugu fi ñu toll xuloo ba ci xeex ba ci sonn na ci loolu dañ na ko ci mënut a fexe ba mu saafara la nga ko saafara mooy mooy mujj wàcc rek wàcc noonu ñetti soxna te ku ji fi mu am mooy jongante ci ko dàq sëy ku ci dàq toppatoo borom këram ku ci dàq ku ci gën a jonge lool moo waroon moo waroon doon wujjee waaye du xuloo du xeex du ñaan baat am na koo xam ne ñetti soxna la yoroon jàng lool ci ñaareel bi mu su doon aaw bi la ñu xëy lañ jiite ci kër gaa tax soo ñetteel bi ci la jàng ñu ne xëy ne li muy seet bee tax waaye ñaareel bi daal ci moom la jàng ba tëdd ba waa dëkk bépp di ko soow diw ni mu jàng diw ni mu ba ñaari soxna yi aaw beek ñetteel bi dem kalaame ko ci boroom dëkk bi ni ko daal suñ borom ko daana daanaka amul soxla ci ñun dama daal ñaare ñaari bi la jël teg teg ko ci suñ kaw hmm. mu daal di koy woolu ñoom hmm. ñëw ne ko dañ ma kalaame ak yow ma wax ne dangaa yor say soxna waaye mënuwoo ci seen diggante hmm. nga wax ma loolu lu ko waral ma ko loolu ñi ngi koy soow ba maa maa koy dégg ñëpp di ko waxtaane donc li lay ñaan rek mooy nga nga woote am ndaje ci penc mi ñëpp daje ma ma ma wax li ko waral ci kanamu ñëpp ma ne ko baax na waaye yéen yéen ñu di yéene borom dëkk bi dañu soxla ne ñëpp gën a takkusaan ci penc mi ñëpp daje borom dëkk bi nag ah, man de maa leen woolu woon li tax ma woolee ni mooy diw sàngam mii Eh, ni mu yore këram yor ay soxna ba noppi maan yu seen diggante yemale wu leen loolu nag laa laa bëgg bëgg li moo wax fii ci kanam ñëpp ana lan moo ko waral. Hmm. ko bisimilah yow lay déglu. Hmm. mu ne aaw bi te moom moom waa ji nag li mu am lépp yeesul am ab xaj akum xar. Hmm. ab xaj akum xar la mu ne aaw bi demal ci kër gi yut ma sama satala ga dugg ci kër gi jasat lagi duy ñëw taajal ko mu daal di jàpp jàpp noppi ni ñetteel bi demal yun ma sama sijaada ga ca kër ga mu dem jële sijaada ga ñëw lalal ko ba mu jekk mu ne ñaareel bi kawaral coow li mu ne ko demal indil ma sama kurus ga ca bopp lal ba mu ne ñokket jëm ca ga xaj ba ne ñokket topp ko xaar ma ne ñokket topp mu ne jigéen a gis de xam nga nit ñi de amuñu xel. Hmm. fam jaare ñoom bañ topp ko fa la jaare man rek man ma topp ko. Hmm, ni ko ni ko xaj ba xar mi toppee. waaw man fam jaare ñoom bañ topp ko. Hmm. fa la jaare man ma topp ko rek. <laughs> wax dëgg jeex tàkk. kon comme moom la mujjee. du xuloo du xeex waaye mooy toppatoo bërëm këram. taxawu ko ci lépp. nga xam ne nam toppatoo xar ma xaj ba fa mu ñu topp ko noonu toppatoo borom kër moom itam moom topp kon kon kujje kon fa mu war a am mooy mooy mooy foofa. xam naa sëñ bi ñuy ñëwaat léegi ci ci ci wàllu foofu xam naa dinañ fi dugg sox ci wàllu wàllu maanu gi ñu doon wax. Hmm. waaye ñu bàyyi publicité mu jàll tuuti rek su ko defee ñu del ñu del sax ñu bàyyi waa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 yaa rabbi bil musa seen boutique maxtabatu Tawfekh waa kër borom taayif nekk fii nag ci Touba indi leen lépp li ngeen yittewoo nag ci ay téere ak téere boo mën a bëgg yow mi bëgg kaamilu alxuraan ak kaamil boo bëgg moo xam arab bi kaamil Baye Moustapha Lo kaamil Serigne Ahmadou Lo wala Serigne Asgede fii nga koy fekk loo yittewoo ci ay xasida borom Touba yi foofu nga koy fekk ak mool boo bëgg moo xam en wala bokk noir et blanc dañuy it photocopie traitement de texte impressionné yu murite te moxtaare am fi it indil na leen ay laafa original ay marakis daal li nga ay bàcci sax ay daali turki ak parfum bépp xeetu parfum boo bëgg rek doxantul fii sa aaja faju loo bëgg ci ay fermeture boo demee maxtabatu a bëgg arabe di jaayit ay kurus yamuñu foofu indil nañ leen nit ay njaq yu baax ci ndoxum siti émoxit dañu sax jaay lem adresse bi fenn rek la maxtabatu tawfeex waa kër borom taayif ngeen mën leen fekk Touba Madiana ci mbaar yi en face arrêt tata numéro ngeen mën leen woo ci numéro téléphone yi 77 204 44 63 wala 77 856 37 08 wala 76 793 94 55 am na nuy place centre commercial Serigne Fallou ngeen mën leen woo ci numéro téléphone yi 76 587 11 86 wala 77 787 21 47 ak Maxtabatu Tawfeex waa kër borom Taïf aji yéppay faj xelkom transport Xelkom transport di kuréel gu taxaw temm ci askan wi di dem ak a dikk ca na mu gën a selle looloo waral wutal nañu leen ay daamaar yu mucc ayib confortable légal taaru am sécurité xew moo mën a am ak foo mën a jëm ci biir dëkk bi wala biir réew mi màggal gàmm céet wala ngénte dañ laatu de bis ngay def délégation ana ndayale yi ana jàngkati xasida yi ñoo moom oto bi lii gën a neex fukki place mën a jël bagage da ngaa bëgg a siyaar lenn ci jeexiti borom Touba da ngay dem Njaareem wala Poroxaan Xuru Mbàkke Mbakke naawel ceyeen jola fu mën a doon waaw waaw roy du nuroog biir oto yaa ngoog xelkom transport ka koy dawal ndongal xelkom sëriñ Saliou Kanji bismillah dem jàmm dikk jàmm xelkom transport oto bi daal jàngkat yi kuréelu xasida yi ñiy dem ak a dikk ñiy siyaara ji ak fu ñu mën a jëm ci biir dëkk bi wala biir réew mi danga cee bëgg ay leeral jokkool ak ñun ci numéro téléphone bi 77 682 95 51 wala 76 879 60 05 xelkom transport mooy ñaanal Serigne Mountakha Bassirou mu yàgg fi lool te ànd ak wér ak xelkom transport da ngay dem jàmm dikk jàmm te ànd ak dal Serigne Fallou Boulanger Serigne sopp Serigne Fallou nekk ci arrêt ci route Alié bi di defar mboolem xeetu mburu yi mburu normal am na baguette am na pain au am na leen am na croissant sax dañu koy defar yéen ñi bëgg mburu moo xam abonnement wala événement ku bëgg a bindu ñu jële ko yëpp bés bu set weer wu ne nga fay événement maanaam xew woo mën a am boo jokkoo ñun def sa commande danañu ko traité yónnee la ko ca na mu gën a gaaw waaw waaw Boulanger Serigne sopp Serigne Fallou nekk ci arrêt bi ci route Alié bi danañu def defar mburu normal baguette madeleine croissant ak lépp lu jëm ci xeetu mburu la ca gën a neex am nañu pulaaye bu mag a mag quantité boo mën a soxla ci ay ganaar foo mën a nekk ci biir dëkk bi poulailler baa ngoog ginaar yu mag ànd ak wér-gi-yaram ñu di leen toppatoo ñu jëfandiku bu baax di xool seenu dund seen wér-gi-yaram danañu la jaay defaral la ko andil la ko ak foo mën a nekk ci biir dëkk bi danga cee bëgg ay leeral moo xam mburu mi wala ginaar yi jokkoo la ñun ci numéro bii 78 470 79 79 80 wala 76 475 41 30 bu laa séeri sopp Serigne Fallou ak poulailler Lamp Fall ñooy ñaanal Serigne Mountakha Bassirou mu yàgg fi lool te ànd koor gi seen dund day neex salaamaaleykum mbokk yi lu bees épicerie al buqatul mubarak ñëw na ah, waaw waaw boo dikkee di nga fi fekk pâtisserie épicerie charcuterie ak cosmétique mën ne lépp loo bëgg ci mbirum épicerie ñëwal épicerie al buqatul mubarak da ngaa bëgg ay fruits ñoom pomme ñoom banaana ak ñoom seen ma ni da ngaa am màggal wala nga am événement bu rëy bëgg ay boisson wala ay fruits ci njëg bu xéwalee ñëwal épicerie al buqatul mubarak bu dee ci wàllum koor gi ah indi nañ bagage yu mucc ayib da ay saucisson mën na la yii yëpp boo ko bëggee ñëwal épicerie al buqatul mubara waaye des na boo dikkee da fay fekk ay viande waaw waaw loolu mooy ndawal wala ay jën fruits de mer wala crack mën na la lépp loo soxla ci wàllum pâtisserie épicerie charcuterie ak cosmétique cosmétique waaw ay diwu yaram yu baax si yaram ak ay parfum épicerie al buqatul mubara boo bëggee ñëw ci épicerie al buqatul mubara bu dee ci jumaay Tuubaa nga jógee ñëwal ba ñaari étage boo doxee tuuti nga xool sa ndeyjoor di nga ñu fa fekk wala nga woo ñu ci numéro yi jëlal 77 55 81 00 wala 66 661 90 15 al buqatul mubarak moo leen di ñaanal kooru jàmm. daa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 la ci Touba Belal Kenkayeri fii ngeen ko jàpp foofu la lu baax suuf leen te ku liggéeyul ñu jëppi la